salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki ak xarit yi donc mbégte ak kontaan la ñuy am di ñëwaat fii ci plateau bi pour firil leen sañse yi nga xamante ne tey moo wër àdduna donc firi sañse lañ leen di présenté tey fii ci classique classique TV fii ci Sénégal 7 ñu war a dalal beneen daanaan encore une fois mais tey ki leen di présenté dafa nekk un Sénégalais boo xamante ne ñu ngi dund fële euh, ci bitim réew donc ñu war ko présenté tey mais man jàpp naa ne bu ñuy lim meilleur sañsekat du Sénégal kii ñu leen di présenté tey duñ ci génne turam donc Tima Zahra lañu ñu ni présenté tey ci Firi Sañse fii ci Classic Classic TV fii ci Sénégal 7 ñu dem xool suñu première photo ñëwaat. donc gis ngeen ko suñu première photo mi ngi noonu Tima Zahra lañ koy woowee. mu nekk ndaanaan kulli fadrin ci sañse man maa ko wax te dina la leen démontrer li tax man leen euh, ki ñu dalal tey ndaanaan dëgg dëgg dëgg la ci sañse tey sunu thème dañ koy accès ci ñaar bi njëkk mooy lan mooy monochrome bi ci topp mooy lan mooy color coordination naka ngay mixer ay couleur ba mu génne loo xamante ni à chaque fois boo génnee nii nañ la xool euh, jaaree ko ci accessoire jaaree ko ci background maanaam environnement bi nga xamante ne moom ngay jëlee say pose dafay gën a valoriser li nga xamante ne mooy sa sañ-sañ Tima Zahra ñu présenté la couleur de la paix muy tout blanc xam na mais dañuy commencer déjà ci background bi xoolal fi Tima jëlee photo bi xoolal ni mu ko accessoriser jaaree ko ci chapeau bi ci sac bi mu yor ba ci dress bi nga xamante ni moom la sol mais c'est extraordinaire Timazara li ma waxee sànq ci début bi nee naa leen kenn du tudd sañ ci Sénégal di jigéen su sunu sœur bi nga xamante ni vraiment man jàpp naa ne il fait partie des cinq meilleurs sañsekat du Sénégal donc tey euh, li ma doon ko waxee sànq monochrome le Tima présenté en tout blanc xam na nga gis background bi gis accessoire yi nga xamante ni moom la assortir yi xam nga li mu sol vraiment c'est extraordinaire ñu photo. bi ci Masara lañ koy woowee comme ni ma la ko waxee sànq mais ku doy waar la xoolal bleu bi ñu présenté daf ñu présenté like blue fade. Blue Fade la divan présenté boo xoolee ku même couleur la ci sañse mais dafa am ay différents mais c'est extraordinaire c'est-à-dire lii boo koy présenté sa xol day sedd parce que da ngay xam ne kii ngay présenté vraiment mais ku dégg sañse la ku mën sañse la ku xam ni muy coordonné ay couleur la quoi donc euh, déjà deux bleus la yu différents mais bleu yoo xamante ni dañuy dañuy dañuy wuyonte xam nga ay bleu yu yuy déggoo la yoo xamante ne dañuy ànd te kenn mënu leen xaajale mais xoolal mu commencé ko ci boot bi yéeg ko ci dress bi xam nga andi beneen couleur bleu ci sac bi non c'est extraordinaire vraiment gars baa nga defal stand innovation xam nga ci sañ sa yéegee sañ sa ko ñu dem suñu troisième photo gis ngeen suñu troisième photo c'est-à-dire euh, au-delà de mën sañse dafa am loo xamante ne moom la tuddee style xam nga tey boo xoolee photo bi da ngay gis ne vraiment Tima dafa dafa dajale lépp quoi lépp lu ñuy wax sañse dafa ko dajale dafa boole style boole ñeme couleur mais xam nu muy coordonné ay couleur am xoolal nu muy présenté ci déjà combinaison en jean mais combinaison en jean boo xamante ni déjà xoolal couleur c'est bleu. mais mu assortir ko ak xam ay bot yu bleu mais génne beneen couleur ci sac bi encore une fois mais c' est extraordinaire cest man euh, vraiment des fois je me dis euh, sañ si don la quoi don la bu la yàlla di du question la jàng wala looy xam loo xamante ne peut être da koy dem di gëstu ji wala nangam ak nangam don bu donc di ma vraiment chapeau et que adduna yëpp bu ñu seetaan émission bi dinañ leen nangul xam ne bu mën sañ-sañ quatrième et dernière gis ngeen ko quatrième et dernière photo euh, de Tima Zahra ñu ko tey ci Free Sañse vert noir <laughs> c'est extraordinaire gis ngeen num ko agencé xam nga euh, ak li ma la ko waxee sànq xam nga ci boole ko xam nga dégagement bi ak style bi euh, vraiment man man je retrouve même premier mot quoi parce que xam nga dama gis loo xamante ni vraiment doy na ngay gis nit. mën agencé xam nga couleur yooyu noonu ni ma ko waxee sànq ci début bi xam nga monochrome lañ leen présenté tey ak color coordination donc fii dernière photo bi da nga ni color coordination bi that's like incredible man ci noir bi xam nga euh, pochette bi mu agencé ko dàll yi xam nga tout noir mu nekk ba fond bi c'est vraiment beau quoi c'est c'est c'est donc ça c'est euh, ni ma la ko waxee sànq ci troisième photo bi euh, lu la yàlla di may la jagle la donc vraiment Tima chapeau. donc Tima Zahra lañ dalaloon tey fii ci Firi Sañse xam nga vraiment ngeen gis xam nga quatre ñu leen présenté yëpp mais c'est c'est c'est du top quoi c'est du top top vraiment euh, incroyable xam nga côté color coordination côté xam nga. Euh, monochrome vraiment si c'est si top quoi c'est top donc Iman ñu lay vraiment jaajëfal di la wax bon courage et que incha allah dinañ ñëw ñëw tourner ak yow classique classique nga xam te mooy émission entière bi incha allah bu ko defee ñu jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah fii di sañse woon en jaam fi jaaroon ah, fii ci classique classique TV fii ci Sénégal 7 ñu jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah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 Sénégal7.com. Sénégal le roi de l'information en temps réel.